jàmm ci réewub Sénégal président Macky Sall am ci taxawaay wu am solo loolu yi ko ko xamle moom moo di Fally Seck jaraaf bu Ross Béthio li jëm ci wàllu troisième candidature bi nga xamante ni son excellence président de la république daal dina koy renoncer mu jàpp rek ni li taxawaay la buy wane nag leadership jëmale ci kilifa gile. alhamdulilah yàlla mooy ñun njiitu réew mu nga xamante ni nitu jàmm la mooy profiter ci occasion bi di ko beral cant ak ngërëm.

monsieur Macky Sall. tey nag ci ay kàddoom muy gën a wéral taxawaayam te bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak it na mu liggéeyal son excellence président Macky Sall fas yéene nag di wéy di xaar ndigal li nga xamante ni dina leen ko jox ngir candidat ba ñu war a tànn naka noonee muy woo képp koo xamante ni bokk na ci bile coalition présidentielle ngir nag muy déglu jëm ci ndigal lile fas yéene nag gën a taxaw ngir yeggale li jëm ci wàllu plan Sénégal émergent de feddaliwaat sama ancrage ak sama fidélité à sa politique Et di top de di ñaax proposer quelqu'un ñu accompagner pour que nous continuer Sénégal ci rampe de l'émergence dans la paix et la solidarité bi nga leneen lu jalaaf bu Ross Béthio rafetlu moom moo di taxawaayu son excellence président Macky Sall jëm ci wàllu mbayu Waalo mi lu jëm ci gunge baykat yi ngir agriculture bi gën a ñoŋ tax Sénégal mën a àgg ci lu tax ñu naan souveraineté alimentaire loolu yi mu lu ko tax nag ci ay benn bennal muy dellu siwaat ci li njiitu réew mi def ci gox bi li gis nañu effort yi muy def pour pour vraiment mbay mi jëm kanam wax dëgg yàlla fan yi ñu weesu rek ñu ngi doon séddale matériel agricole mu nekk lu nga xamante ni dina gën a oyofal liggéeyu baykat yi te dina yokk vraiment la production ndax gannaaw matériel agricole boobu subvention yi mu def ci engrais beeg semence beeg yooyu tax na ba nga xamante ni tey fi tey mbay gën a dem kanam. lii di beneen taxawaay boo xamante ni jaraaf bu Ross Béthio amal na ko ci goxu wàllu yi Faly Seck ginnaaw bi nga xamante ni jotoon nañ ko tuddee ab conférence bu mag ci Ross Béthio loole nag mu tax mu yëkkati yile kaddu jàpp rek ni kile nga xamante ni moom moo di son excellence président Macky Sall tey la ñuy gën a wéral seen taxawaay mu wane tamit leadership boo xamante ni moom jaraaf bi am na ko fi nga xamante ni moom di ci département bu Dagana